mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Sénégal 7 ñu amati mbégte euh, ñëwaat ak yenn ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu wàllum pàcc dal di si fas yéene janook ni ñuy fat ni ñuy taamoo di ko defee ak euh, docteur Abdoulaye jàll di naturologue euh, xam-xamam màcc ci wàllu pàcc pàcc bu jëm ci wàllu gàncax gi ci na mu gën a naturel waaye na mu gën a efficace Euh, di indi ay solution yu bëree bëri yu efficace yu gaaw ci euh, tawat yu bëri yoo xam ne euh, askan wi ñu ngi jànkonteel ak moom dañ koy bàyyi rek mu nuyoo balaa ñuy fàttali ni ñu jot a waxtaanee fan yi ñu weesu balaa ñuy ñëw si waxtaanu tay bi docteur ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Faye Olivier di nuyu équipe Sénégal 7. Mm-hmm. di naan asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah niñ ko waxee sànq docteur ci. jotaay bii weesu jot nañu waxtaane lu jëm ci wàllu kolopati ndax bëri na feebar yi nga xam ne euh, da nga koy euh, faj hépatite euh, jot nañ ci waxtaanee hémorroïde itam tey nag dañuy waxtaanee yeneen feebar yeneen jàngoro ndax fii ak ay fan dinañu dugg ci weeru koor gi koor gi buñ ko waxee ñu bëri ñu nga xam ne rawatina am nañ tawat bu jëm ci lu mel ni ulcère dañu am jafe-jafe ngir mën a Euh, woor euh, ulcère loo ñu ci mën a wax balaa ñuy dugg ci euh, li nga xam ne mooy tawat boobu. merci Coulibaly. feebaru intestin feebaru estomac la. ci wolofal bu nit ki bu estomac bi amee problème wala muy métti ñu naan estomac la amee. Mhm. mais métit bi bu demee ba nekk góom. ñu ne ulcère d'estomac ñu bëri dañu am ñu ne dama amee estomac déedéet ameewu estomac da nga amee lu ëpp estomac danga nga amee ulcère d'estomac mën na nag manifesté wu plusieurs façons mën na nekk ulcère bi mën na nekk fii au niveau de fii la plupart nit ñi dañ naan sama xol day metti mhm. fekk du xol de xol nekkul fii xol fii lay nekk mhm. côté droit ulcère fii la ulcère bi fi ngay xam ne sax commencé na graaw góom bi commencé na rëy ak inflammé muy répondre ci ginnaaw mhm. xol bu méttee day jam comme pont aussi ci ginnaaw mais ulcère fi muy méttee fii day répondre ci njëg gi aussi les répondre fii metti muy répondre fii comme aussi mun na yem fii àggagul fii mais toujours góom baa ngi foofu métti bi ci ginnaaw gi day egg ci rein yi wala déedéet mhm. rein c'est un peu sori na mhm. ci suuf la nekk lii ci kawla la d'abord estomac ak rein ça n'a rien à voir bi ko gën a jege sa ak kër bi ko gën a jege ça n'a rien bu góom bi demee ba bëri ay bactéries sax mun na mun na la fàttaloo ngay fàtt ñenn ñi sax naan asma nga amee fekk amoo asma mu lay sëqatloo lu bëri surtout bu biir bi tilimee nga am ulcère ba pare biir bi tilim d'ailleurs biir bu tilim di constipé wala colopathie ni muy joxe hémorroïde noonu lay joxe ulcère Ah waaw butit yi bouché na ngay lekk di am remontée gastrique remontée gastrique mën nañ dem ba jox la problème d'estomac jox la ulcère d'estomac wala reflux gastrique mhm. reflux gastrique yi jox la estomac jox la ulcère d'estomac ngay lekk mënul jàll bu yéegaat mun na di yéegaat ba ba am na ça dépend li ngay lekk ci aliment lourd yi ngay lekk rek fekk sax xameewoo ko bu baax mu jam jàmbuti di mu bëtt ko def ko góom mun na dem ba nekk duodénal fii di jam waaye fii mun na jam fii di jam aussi mooy ñi ngay dégg seen biir di metti tout le temps tout le temps tout le di ballonné tout le temps tout le temps tout le fekk du hémorroïde de fekk ulcère duodénal la quoi qu'il en soit man duma la faj ulcère fekk raxasuma sa biir damay vider boutique yi. Mhm. dindi lépp lu fa bouché woon boobu quinze mille nga jël garabu ulcère d'estomac quarante mille quatre semaines nga wér quatre semaines attention deux semaines yu njëkk yi wala première semaine bi moom dina saf sap mhm. parce que day mel ni alcool boo def ci góom mhm. xam nga day saf tuuti góom lay faj maanaam nettoyage bi la boo ñëwee ci man deux semaines avant Ramadan foo jaar di nga woor rek boo teewoon cinquante ans wooroo boo ñëwee ci man di nga woor. Hmm. deux semaines avant <coughs> parce que à partir de deux semaines di nga tane bu baax. gisuma beneen médecine bu ko mën a faj xanaa ay calmant ñu lay joxe garab ngay màcc rek ay comprimé ngay màcc loolu laay faral di naan comprimé produit chimique la. Hmm. nu muy fajee góom. jigéen mun na ànd ak ulcère des années. du ko rey mais góor góor warul di am problème biir. ndax benn butit la ñu faral di wax. góor moom ne na buy bëyam di mitt na éviter di am ulcère na éviter di ballonné ne éviter di am hémorroïde soo bëggee gudd fan. Mm. Sénégal nag dañoo baaxoo di naan yàlla mooy ree baax na bu leen faju ulcère mm-hmm. góor bu ko amee na dem faju góor bu amee problème biir na ko faj biir bu metti jigéen la la la jig comme bopp bu metti jigul jigéen góor la jig gis nga jigéen bu bàyyil boppam di métti dee rek xam nga damay faral daan même ñi nga xamante ne seen bopp yi day métti di métti di métti naan nañu lu ne mënuñ fexe ba bopp yi métti ci biir bi la rek mm-hmm. man bis bi ma dindee sa biir bi raxas ko bi mu set wecc la mm-hmm. laan demee dootu am bopp bu metti d' accord ulcère bi lu koy andi docteur. mauvaise bouffe. Mhm. mauvaise digestion. yenn aliments yi aussi acide ku nekk ak organisme am na ñoo xamante ne ñemewuñu petit cola. Mhm. man maa ngi ni di yee petit cola am na ñoo xamante ne ñemewuñu guro sama papa bi ma juddoo ba tey mu ngi yee guro du ko def dara. Mhm. man bu ma yéen guro rek léegi léegi ma am problème ulcère. comprends nga alors que petit cola ko yëg c' est ku nekk ak sa organisme li mu nangu xam nga buñ leen ne booy tëdd jaaxaanal sinon jamal côté droit avant d'aller côté gauche yooyu yëpp dafa am lu ñu lay éviter yonent bi c'est un grand médecin mm-hmm. mais les gens n'ont pas suivi wax naa keroog ci émission passée bi ñuy wax ci hépatite nee naa c'est le premier à signaler l'hépatite bi fu muy naan bàyyi leen di naan di taxaw di lekkee main gauche ce que les gens font aujourd'hui dans les restaurants là daggee couteau main droite fourchette main gauche mm-hmm. ça donne la maladie de la fois ça veut dire l'hépatite moo ko njëkk signalé moo tax ku nekk am na hépatite xamul lu ko indi donc ulcère voilà ce que je peux en dire d'accord euh, mën na dem sax ba am dëdd après di infecte yaram bi yëpp infecté butit yëpp mm-hmm. infecté euh, foie bi infecté xol bi xam nga parfois da ngay am fi góom mu toj am fu mu dal mu nekkaat beneen góom mm-hmm. c'est comme ça biir dafa war a set intestin dafa war a set d'accord rappelez ñu remède bi ak noo ciy demee. surtout euh, c'est juste euh, laver le ventre euh, un jour et puis prendre le traitement quatre semaines c'est fini quoi. un mois quoi. quatre semaines. d'accord voilà. d'accord bu la neexee nag. chaque six mois wala chaque un an bu la neexee nga renouveler. Mhm. c'est toujours bon de prendre une pomme à jeun. très bon très bon. Mais ici au Sénégal, on a une alimentation pauvre en fibres. On mange presque pas de vitamines, on mange presque pas de fruits, on mange presque pas de légumes. Et pourtant, il y en a plein. Mais c'est les moyens aussi. D'accord. Mm. D'accord. Donc, loolu nekkoon euh, wàllu ulcère ñu fàttali rek ne ñu ngi ak docteur euh, Abdoulaye Diallo. du ma docteur de Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, naturologue. xaritu Yache ak Junior. voilà <laughs> naturologue di euh, yëngu ci wàllum euh, paj docteur gannaaw euh, mënuma la bañ wax docteur gannaaw ndax da ngay faj gannaaw ulcère bi ñu ñëw si halitose halitose ñu bëri dinañ laajte lan lay war a doon luy halitose. halitose mooy xeetu gémmiñ. Mhm. mooy mauvaise haleine ci français mais scientifiquement halitose lañ koy wax. Mhm. scientifiquement on l'appelle halitose H T O e. mm-hmm. koy andi. question am na ñu am mauvaise haleine. Mm-hmm. fekk c'est la langue dañuy brosser duñu brosser seen langue. am na ñuy am mauvaise haleine fekk carie dentaire la ñu am. Mm-hmm. am na ñuy am mauvaise haleine fekk ataaya sax moo leen ko jox. lowal boo raxasul warga bi bu warga bu warga bi dese ci lamiñ bi mën na la jox mauvaise haleine. album ah boo demee sax définition dictée dans Larousse plus loin tu verras ce qu'on dit dictée cigarette mun na joxe mauvaise haleine yenn sax pâte dentifrice yi mun na joxe mauvaise haleine euh, mais haliteuse bi tax ñuy wax ci butit la butit bi bàq bi moo tilim mën nga def tous les hôpitaux du monde tu peux prendre toutes les pâtes dentifrice du monde d'ailleurs mais docteur bàq bu tilim ba pare nga ni def tilim waaw ah. nu mu nu muy mosoo mosoo fees xar ah, ok <laughs> gisoo bàq bi nu mu mel waaw hmm? bu setee nu mu war a mel ne pas avoir du pu lu ñëw jàll bu defee liggéeyam mhm. li war a génn génn li war a dem ci deret bi dem ci deret bi moo tax may naan nit ki dafa war a raxas biiram chaque deux mois wala chaque trois mois pour sa organisme de normal mhm. du di def sport tout le pour organisme bi di mën a def machination am comme il le faut mhm. curage mais mel ni man rek lekk rek tëdd rek tëdd après madame ñëw di la bés jeex na neex nag yaa fi ne xoolal Sénégal da ngay lekk dibi naan coca très dangereux lekk dibi naan coca am na ñoo xamante ne banaan nen banaan nen mun na rey nit lekk banaan wala lekk nen lekk banaan mun na la rey poison la soo ko defee ci naaj bu tàng sax boo moytul di voyager def ko ci naaj bu tàng boo moytul tension moo na a rey ci oto bi mais les gens ne réfléchissent pas togg fiiriir def ci nen ça ne colle même pas après nag bu la tegee li ñu naan defar bi mu baax. bëri na li koy def de. parce que c'est pas mhm. jànguñu sax luy togg togg dañ koy jàng. doo yeewoo rek dem marché loo gis jënd nga naan dama koy orné looy orné. Mhm. looy après rek mauvaise digestion toutes les maladies sont là li ñuy lekk moo baaxul. Mhm. gis nga suñu mag ñi ni ñu doon guddee doon guddee fan. parce que fekk ñu lu bon li ñuy ñuy lekk nii. aujourd'hui même les salades qu'on mange là produit chimique la kii salade jardin bio laa ko defal. Mm-hmm. waaw buy dindi salade dindi ko ci booy dindi betterave bio ku nekk ne def këram benn jardin bio loolu ki c'est facile. Mm-hmm. léegi nag nu muy tilimee wax naa la déjà est-ce que xam nga sinusite mën na joxe mauvaise haleine am na ay mauvaise haleine yoo xamante ne sinusite la ci bakkan bi lay génnee kooku boo ñëwee bël ne damaa amee mauvaise haleine ñu la jox garabu halitose hémorroïde interne day joxe halitose moo tax faj halitose dafa jafe parce que borom boo ko ne quarante mille laa faje halitose par exemple déjà c'est coûteux mm-hmm. fekk hémorroïde interne moo ko indi léegi siti tu dois faire machination faj ko d' abord colopathie faj ko raxas biir d' abord faj hémorroïde interne mun na ko def sax xet bi dem mais wi bi mu ñëwee ci moom patient bi gisul lu dul nga wax ko rek halitose garab baa ngi nii fekk xamul ne halitose bi hémo moo ko indi hémorroïde moo ko indi interne wala halitose bi sinusite moo ko indi sinusite bi boo gisee mënuñ ko faj à l'hôpital moderne par exemple c'est parce que siti moo koy indi siti bi boo ko fajul nooy fajee sinusite man amoon naa sinusite bu xeeñ sax novo keneen laa doon jël paquet yu am seize sachet may naan rek xet bi di ñëw mais un moment bi ma defee samay recherche ma xam ne non siti laa amee siti bi moom jox sinusite ma faj sama si faj sama sinusite mu wér je salue monsieur Mbaye au passage de Coris Bank moom xam na moom ba doon jënd garabam sinusite par un an lay jënd teg ah. sama garab deux semaines la koy biir na semaine sax mu sànni je peux te montrer tous ces messages mhm. muy wax sax benn collègue bu ma bu ma yónni kooku di faju xaw ma du ma du rhumatisme doon faj xaw ma mu ni est-ce que wér xam nga wér na deux semaines kii du nit ñuy wax mu envoyé tout euh, leur discussion incha allah même dinañ def des vidéos de témoignage peut-être on les on va léegi nag. Mhm. très important ce nga am halitose nga ñëw ne ma halitose ñu jox la garab raxas biir ñu jox la garabu halitose soo demee dina am effet de à cinquante pour cent mais monsieur bu dee da nga am hémorroïde interne nag doo jóg nga faj loolu d'abord. Mhm. su dee nag ci bakkan yi lay génnee est-ce que doo faj sinusite bi et pour faj sinusite bi est-ce que doo faj cité bi si tu es leer na la sa trompe kon dafa am nga benn trompe bu bouché. Hmm. boo amee sinusite bu xeeñ boobu si tu es leer na ne am nga perturbation de règle parce que cité baa ngi foofu justement da ngay faj loolu nga doog a faj loolu. il faut toujours soigner ñi la à la racine ni ma koy faral di waxee. et tout ça aussi man faj naa ñoo xamante ne seen biru huit ans parfum yu fort la ñuy yóbbu des femmes mais dama leen ko faj en deux semaines donc Alito c'est un peu perplexe. naan rek sama gémmiñ dafa xeeñ nga ñëw rek ñuy jox rek garab Alito nga laaj ko ñu jox la Alito parce que man je ne consulte pas man yaa may naan lii nga feebar ma faj la. je ne consulte pas et mes médicaments n'ont aucun euh, effet moo tax man patient soxlu sax di jël sama numéro téléphone di ma du la sax jox sama numéro boo moo say ne doo jot parce que xam naa ne y aura aucun danger quand tu prends mes médicaments y aura aucun doo musa woo ñu nga may naan yóbbu na la urgence jamais man fajewuma poison man naturopathie lay def mm-hmm. lu ma joxe c'est naturel c'est des vitamines comprendre nga. Mm. donc groupe. Mm-hmm. mais boobu certainement yaa ngi wax léegi ne euh, bu fekkee ne nit ki daf ko am li ko mën a causer mën na doon benn hémorroïde. Mm-hmm. Euh, maintenant certainement dina am ñoo xam ne ils vont se la question de savoir bu ñu waree traiter hémorroïde ba pare pour mu am impact ci halitose bi pour traiter ko est-ce que ils vont payer doublement ou pas. bien sûr tu payes hémorroïde mm. faj ko. raxas biir 15 000 hémorroïdes 30 000 ça te fait 45 000 nga traité ko 3 semaines. Mhm. soo paree nga ñëw pàcc halitose bi 40 000. d' semaine 4 semaines mais en 2 semaines tu es guéri. Mhm. nga sax faj hémorroïde bi nga gis mu jeex. nga xam ne donc c' était pas une mauvaise haleine de venant de la bouche mais venant de l' intérieur des boyaux donc au plus profond de toi le ventre c' est li ngay dégg jàll dafa mën a faj yëpp si du dara ci biir bi laay jaar rek impuissance sexuelle ci biir laay jaar rétrécissement sexuel ci biir bi laay jaar éjaculation précoce ci biir bi laay jaar hernie discale ci biir bi lay jaar diabète balaa ci biir bi laay jaar hépatite faj ci biir bi lay jaar mauvaise haleine ci biir bi laay jaar hémorroïde ci biir bi lay jaar biir bi day am saafara Je répète encore, il faut toujours soigner le mal à la racine. D'accord. D'accord. Donc, ñu fàttali encore une fois que Abdoulaye Diallo, docteur naturopathe, naturo, naturopathe. Hein? Kon, comme on va dire maintenant docteur, nous on est avec Abdoulaye Diallo, chérie Aïcha. <laughs> defe naa ne mooy gën a gën a gën a gën a gaaw. Mm-hmm. donc ñu ñu ñu jóge ci alitos wax nga ko sànq junj nga sinusite bi. mel ni halitose bi ak sinusite dafa am benn link. bu ñu nañu niroo xaw nañu niroo. halitose. Mhm. ci gémmiñ rek lay génn. sinusite ci bakkan la. Mhm. mun nga dem sax doo dara du la xeeñ. sinusite. Mhm. dara du la xeeñ. cuuraay du la xeeñ. parfum yow parfum bu ma ko defee odeur bi mu lay jox ak ki am sinusite bi sax du bokk. Ah ku am bu garaaw bi sax tous les parfums on le même odorat. même odorat li ma lay wax ni man sax koy am de mais xam nga fajkat du faj boppam. <laughs> suicide boobu loo loo si mën lu ko lu koy andi. siti bokk na ci. Hmm. xam nga siti mën na dem ba jox la nga chauve mën na dem ba bu dee jigéen sa karaw di dagg. mu nga dem ba sa bët di yàqu. Hmm. mën na dem ba yàq sa maniw. mais li ma doon wax keroog rek même même même maniw munoo faj ko am problème azoospermie fekk fajoo citiam am est pas possible ay nécrospermie ay sténospermie ay tétranospermie kooku munoo ko faj fajoo siti biir bu nekkee ndeyu feebar yi rek xamal ne siti mooy bàyyi feebar yi tubaab yàlla daf leen may lépp mu xañ leen ñaar ñaar yi yàlla may ma ko biir bi siti bi tey tey ñoom ñëpp nangu nañ tous les centres yi nangu nañ li may wax ñoom kay ñi muus ñi ñu ngi ñëw di poser question di jéem a planifier ay séminaire waaye nag dañu xam ne séminaire ak jàll moom yombut yow mun nga nekk sénégalais nga nekk rhumatologue nga ñëw proposer un séminaire que tu vas te quinze millions séminaire pour ñu waxtaan ci affaire u bi nu muy indee arthrose nu muy indee rhumatisme nu muy indee polyarthrite rhumatique ma gëm la ma ñëw fekk si la sali daal pour ñu def séminaire trois jours nga foog ne boo ma ko waxee man dinaa la gëm nee naa la man bongo moo ma yar je comment on les gens je sais que toi sénégalaise là y a quelqu'un qui t'a quinze millions pour venir tuer Diallo je suis pas fou moi mm. et rêve ba pare sax ma bloqué ko mais c'est que séminaire bi dinañ la tendre benn bouteille d'eau tu vas boire l'eau là c'est empoisonné nañ la jox benn plat di nga lekk parce que trois jours tu vas passer sans boire sans manger même dans ton dans ta propre chambre d'hôtel on va te servir si c'est empoisonné maintenant tu vas mourir c'est-à-dire dañ la ngay ils savent que d'ici un mois ou deux mois tu n'existes plus une mort progressive ko quand même dootu jàll de wut leen yeneen pexe d'accord docteur ba léegi ci ci sinusite bi euh, lan moo ci lan lan lan moo ko gën a mën a intensifié ak lu ci mën a doon. man boog sama bopp laa xam bi ma koy am. Mhm. garab yi may liggéey la ni ma doon mélanger garab yi. Mhm. ni ma doon takkee garab yi sans masque. Mhm. wax dëgg yàlla ma man lii moo ma joxoon sinusite. damaa toog ba sax ma gis sama bakkan di xasaw xun. sunguf may nooy rek du xeeñ. yàlla xam na ko ma gaaw a jóg sama bopp nag. ku nekk ak ni mu ñëwee am na ñoo xamante ne ils sont tellement dégueulasses seen njaganaay duñ ko mës a changer njaganaay bi bëri fees dal ak poussière nag bu ñuy tëdd sax duñ ko fëgg ñëw rek mel ni man sum bi daal tëdd nga boo nelawee yaa ngi nooy poussière bi ci njaganaay bi ay bactéries di dugg. mais ventilateur aussi. wala nit ñoo xamante ne mënuñu brosser bu ñuy tëdd. Mhm. gémmiñ bi saleté yi bactéries yi nekk foofu des heures temps bouche fermée mais après. tu respires tout xam nga bi imagine déjà tuflit kese kese kese kese salive sax produit chimique la euh, jàngoro yooyu docteur di ulcère halitose sinusite yi nga xam ne faram-fàcce nga ko wax nga ñu lu koy andi wax nga ñu également euh, traitement bi naka lañ koy defee ak lan lañ mën a coûter patient bi euh, dafa mel ni itam mbirum asrar daan nga ko def ba tey yaa ngi ci asrar c'est une science mystique mhm. extraite du Coran, mmh. des noms de Dieu, des litanies. science la rek yow sax mën nga def asrar moo tax su ma gisee yenn boy yi di yor seen grand mbubb yi di perti perti ci télé yi di naan ay lañ def <laughs> damay ree quoi asrar ku nekk mën na jàng asrar mën ko xam nga mathématique classe mathématique la rek am ñoo xam ne dañuy ils sont très mais am na ay secret quand mais loolu laa lay wax ni dafa am ay signe la rek ay c'est-à-dire na nga mën d'abord abajada c'est-à-dire l'alphabet les vingt huit lettres de l'alphabet arabe bu nekk nanga xam lu muy lim suñ la neewoon par exemple Ababacar xam nga Ababacar lu muy lim suñ la ne Abdoulaye xam nga lu muy lim suñ la ne Ayetal xam nga lu muy lim. mun nga ko calculer aaju nangam nga wax ko nga boole ci tuur yàlla yi xam nga nga lim ko xasb ko c'est-à-dire ko def ko ci carré magique loolu la ñuy wax xawaatim xaatim li ngay dégg li ngay dégg xaatim yëpp c'est un carré magique les diagrammes deviennent cartésiens là c'est c'est juste ça ah loolu dong la diagramme devient diagramme cartésien mm-hmm. la <laughs> c'est ça les xawaatim hein olof di ko naan xaatim mm-hmm. c'est des carrés magiques c'est tout. mais am na lu ci nekk aussi docteur. Mhm. baal ma doguma la euh, nee nga mathématique la mais dafa am ay préalable ndax bu fekkee ne euh, jàng nga di def asraar mais ci gannaaw ga ngay euh, dóor nit ñi dóor niñ ko xamee jamono ji di nax nit ñi. comme ni ma doon def man. waaw wala nga nekk di wax loo xam ne méngoowul ak dëgg xam yooyu aussi est-ce que du yàq liggéey bi. maa ngi ñëw boo yàkkamtu rek ma faram fàcce la c'est juste cest à dama bëgg nit ñi rek xam ne ñii di leen xokkatal jarul ñi tiit ñooñu sëriñ bu lekk sa xaalis demal mu delloo la sëriñ bu la nax lekk sa xaalis di naan jinne yi day fen amul jinne amul rawxaan day fen hmm. ko yor raw xan ak jinni ku am maqaama boobu du lekk alalu jàmbur ku yor ay jinni ay ay ay ay du soxla nit sax di ñëw di ko indil xaalis c'est archi faux mm-hmm. ñëw ci néeg bi fekk fi ay kori fekk fi ay xawma lan ay corne di n'importe quoi def def ko en rouge c'est di n'importe quoi c'est di n'importe quoi xamuñu dara mm. dara mënuñu ko buñ ko mënoon man ray nañ ma bu yàgg Je les ai tous éliminés sur la chaîne. C'est juste une équation à deux inconnus ou bien une équation à plusieurs inconnus. jeex na. Comment les résoudre? jeex na ça dépend du problème qui est devant toi. jeex c'est juste ça. léegi. xoolal nga jël tuur di ko wirde bon wala nga jël tuur yàlla di naan dangay ngay créer une liaison sexuelle entre un homme et une liaison xaraam nga ñëw fay ma xaalis xaw ma ban xaalis nga may fay sax naa la liggéey benn jigéen <laughs> pour mu topp la ay waay samba yow daal sa million bi moom a gën a sama sama sama sama sama bàmmeel bi te xaw ma sax ndax <laughs> dinaa ko lekk mu rees lii mooy seen problème dañoo yàkkamti seen wërsëg ku yàkkamti sa wërsëg nga fen man de teg naa ko yàgg na ni ko waxee rek daaw naa def asraar ay akkaw naa ko mënoon nag mais dama ci boolewoon kàcc gabon laa nekkoon mhm. di ko def nañ ma jéggal ci kàddu yi ñuy naan par exemple da ngay ñëw benn koo bokkul dina ñëw teg la benn aaju nga laaj ko ay million nga naan ah man sama alxuraan bi sax du ma ko du ma ko sàngee ku bokkul diine nga tëdd nelaw lekk million bu ñëwee suba nga jël benn huit def ko ci daay bi rek jox ko mun na dem nag aajam fajoo ah, parce que yàlla nee boo ma foogee ci xeer sax nga fekk ma fa loolu doo nga fi ne nag man amoon naa secret boo xamante ni 3 heures du matin laa koy wird 120 fois laa koy wird bu ma doon wird sax du ma ànd ak njàpp damay régler sama réveil ci kaw laal bi laa ko doon defee ku ñëw ci man sa aju day faju hmm. waaw mais jusque là dama doon ne ay dóor la c'est comme si j'étais Dieu que je pouvais régler les problèmes ak kamaari yoon nag hmm. ngeen di grand boobu laa doon def wut nag ay ay ay ay ay ay ay gars yoo xamante ne su may dem jàkk ji sax ñoom dañ may topp ma mel ni nag quelqu'un alors que tojuma fenn man j'assume ce que j'ai fait man je suis un homme libre un libre c'est un homme assume ses responsabilités dégg nga ma mm. samay doom sax ñu ngi may dégg ma tey damay wax dëgg gi taxul ma dóor ci samay mborom de aw ma ci sax terrain samay rak ñëpp mer ma ne ma grand bi waroon na am immeuble yu bëri Dakar ñi ñi ñi ña ñi ña ña mais nooseur la effectivement nooseur laa woon xaalis bu bon la amul barke. terrain sax aw ma ko ci gis nga bi ma ko bàyyee 2016 jëm léegi lekkuma dërëm bu lewut barke ñëw na de. kër yi bëri nañu de macha allah. oto yi bëri nañu de macha allah. je n'ai aucun souci. aucune dette. ni morale ni financière. alhamdulilah rabbil alamin macha allah. d'accord dégg nga mu baax. Uh-huh. bàyyi kon dafa toog asalaat. ma teg naa ko ci suuf. xam la laa yor. Mm. un plus un égale mar mu leer man suma ma la joxee bidon bi boo naanee di nga di nga di nga nga màndi da ngaa su da nga xiif mu leer man su ma la joxee ceeb bi boo lekkee di nga rek. Mm-hmm. loolu laa yor même sama organigramme ni may liggéeyee. plus de quatre-vingt-trois xaw ma quatre-vingt-quatre ñu ngi ci sama liste yi traité boo ci xam ne boo demee peut-être lay doon duma la ko jox dindi naa ko ci sama programme mu ngi mel ni sawlal bi sur dix enfants yoo xamante ne dama leen doon traité sawlal huit ñoo ci am résultat deux ñu am ma bàyyi ko dama ne léegi ku ñëw boo waxee sawlal garab bi bu fa nekkee ma may la wala garabu nelaw munoo nelaw guddi boobu tamit sur dix personnes huit yi daaw nañu gis résultat deux yi du ñu gis ma bàyyi boo ñëwee doo nelaw ma may la garab ma ne a ah, tante ko kese dégg nga wala déggoo ma mhm. man li ma jot a dund xam naa duma ko dundaat de sama bàmmeel bi moo ma gën a lu ne ci man lu doomu aadama di ñaan borom bi may na ma ko ba pare léegi lu lan lan moo des lu may yàkkamti lu may daw bay daanu ci yii daal juróom yi naa ko def. Mhm. ñu jeexale et c'est pour rendre service. Mhm. waaw ndokk ndax ñu jeexal sax sonn naa. <laughs> ku nekk ba bëgg papier parce que damaa gis ñoo leen di laaj ay millions. Mhm. te xamuñu extérieur neexatul Italie nekkatul Italie. Espagne nekkatul Espagne. ñooñu gën a sonn. ñu laaj la ay millions fu ñu koy jëlee. fekk dañ leen di dóor. trente cinq mille ngay fay ma ñaanal nga am papier. vingt en un jours nga koy utiliser. dégg nga ma. pour trente cinq hmm. bu dee nag yéen ñëpp bokk ci famille bi. waaye sa doom bi nekk Suède kii nekk Norvège ki nekk Nangam déedéet bu ñëw. il faut rek bokk lekk. wala entente entre couple. jëkkër ak jabar yu déggoowut ma ñaan ci. sirru Faatiha sax laa lay jox. te su ma la jox da gis sax ni ma ko bindee. Hmm. sama xam-xam lu ma nekk jaay ko cent millions. mais vingt cinq mille ngay fay dégg nga ma wala ku am problème tout le temps ak jëkkëram nga bëgg problème yi jeex donc xam nga les deux là sont différents ku bëgg amour ak ku bëgg problème jeex bokkul boo bëggee ñaar yëpp cinquante mille ngay fay bi ci nekk vingt cinq mille la dégg nga wala ak kiis kiis mooy neexal xel xale boo bëgg mu gaaw a mokkal alxuraan wala lu mu jàng assume ko foofu sax ngay xam ne am na ay parents yu bëgg seen doom dañuy ñëw gis ko indi quinze cent cinquante mille parce que dix mille lay laaj mhm. cent cinquante pour quinze enfants ne seen doom yi jàng parce que xale yi jàngatuñu di je pense juste dans vingt ans que sera ce pays mhm. parce que ñii di jàngale jànguñu bay jàngale ñenn ñi boog lay wax internet yàq na xale yi kenn jàngatul ku tëju néegam 18 heures ba minuit nga foone sa doom ji mu ngi jàng ci téléphone bi la ne mhm. di def nag sa dul noonu je suis obligé de d'amener mon coup de pouce encore je dis bien encore à la société c'est ça être un homme yi ci des c'est pas du maraboutage c'est un don mooy faj rab wala envoûtement yooyu diggal laa ci am rek mooy bi may faj dof en Casamance boobu sëriñ bi ma ko joxoon Ceerno Baaba Galle Njaaj dama dee Njaaj mi deewagul léegi dee na bàyyi naa faj dof parce que lu ma ci fekk aw ma ku may ku may ku may man te moom moo ma doon défendre comprendre mais rab bi moom maa ngi ci des trente mille la borom di fay rab ak désenvoûtement saafara bi benn la day dindi rab di dindi envoûtement ba pare belende la kenn du la mënal dara te ku jóg ci yow gis d'accord boobu trente mille la ci li laay defee wala ku soxla emploi dix mille francs dix francs nga am liggéey ci kattanu yàlla nag hmm. incha allah. d'accord xam nga ni ñi ñu bëri fii nañ leen di ne nga dem ci sëriñ mu ne incha allah kay dina baax nga fay 2 millions lu tax mu ci def incha allah bi comme moom mooy yàlla kay ba day fay 2 millions bu mu ne incha allah. Hmm. mbaa émission bi jeex na rek. jeex na ñu waa aaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf euh, docteur mbokk yi dégg ngeen ko donc ñu doon dalal euh, docteur Abdoulaye Diallo ñu waxtaanee tey lu jëm ci wàllu ulcère halitose ak euh, li nga xam ne mooy sinusite. wax na également ci euh, li nga xam ne mooy asraar euh, euh, li mu baaxee ñi nga xam ne ñooy déglu ñu daal di leen rek dig daje baneen yoon ci yeneen jàngoro yoo xam ne na ko faram-fàccee leen ci ay solution xam naa di ko mën a jot si numéro yi nga xam ne mooy affiché si écran bi boo leen ko woowee rek di ngeen am saafara ci seen jàngoor yi nga xam ni jaaxal na leen walla ngeen toog diir bu yàgg boo xam ne sonal na leen donc numéro yaa ngi noonu mën ngeen ko woo saa soo leen ko woowee rek jot ko euh, ngeen mën a am noo leen jëflante. ma dolli ci lenn nga mhm. baal ma. Mhm. kenn warul wax waa axiru daawaana alhamdulilah ibrahima sax da ci teg leneen mais samay soxna dañoo sonn. Mhm. ñoom ñoo yor téléphone yi. wax naa leen adresse bi c'est Petit Mbao. entrée Petit Mbao am ne clando clando boo jël nga nekk kër docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi mu yóbbu la. samedi leen lundi la ñuy liggéey. lii dafa jar ngeen di woote di dañuy déranger. adresse bi laa bëgg a xam nañu may nañu may ñeex waay ñoom tamit. <laughs> Fass Mbao ah. de quatre-vingt mille appels par jour on peut pas il faut ñi mm-hmm. ku bëgg a faju am nga adresse demal nga faj man damaa neexalul kenn di kenn laa neexalul. Mm-hmm. bu leen ko coupé nag ma kenn li ma yor barki neex Muhammad ma kenn dama yor lu kenn yorut yàlla moo ko may dama ci ñàkk fayda. Mm-hmm. ça je le dis ça tout le monde ku ñëw nag ànd ak yar am ko àndoo ak yar. nga fekke ko fi ko réew ku mel ni yow rek nit yàlla moom ni miroir la mel ku indi sa jikko rek nga fekk ko fi boo indee yar nga fekk ko fi indi réewande rek nga fekk ku la gën a ku la gën rek rek c'est simple comme bonjour mais nit ñi dafa mel ni nit ñi se c'est pourquoi je te rends service tu ne me payes même pas li ko jar di ma sonal ay téléphone chaque jour di ma laaj adresse c'est quoi c' est quoi ku war a dem hôpital principal ñëpp xam ne principal ban oto ngay jël. Mhm. diñ dem bay laaj ban ban bus laay jël ñun dañoo xam tata ñaanuñu yàlla yëg ci tata c' est quoi <laughs> arrêtez ça. d' accord donc mi ngi noonu mbokk yi adresse bi Petit mbaaw la. Euh, bu ñu ñëwee ba si croisement bi n' est pas. Euh, daal di. Euh, jël clando yi nga xam ne ñooy dem ci mango yi. bu ko defee rek ngeen mën a egg ci docteur Diallo mu daal leen indi saafara. donc ñu dig leen daje beneen yoon ci yeneen jàngoro ak docteur Abdoulaye Diallo jërë ngeen jëf.